di am mbégte lool tey teewaat fi ci jumaa ji euh, teewaat fii ànd ak njabootu Maama Ndiaye Fall Lamine euh, mm, ci teewaayu sëriñ Abdul Ahad Bousso Thierno mi nga xam ne moo fi teewal sëriñ Afi Bousso al imam euh, tey jii nag teewaay bi moom damay wax ne teewoon nañ fi ci koor gi indi woon liggéey bu jëm ci koor gi muy ay ndogu Euh, teew ci teewaay itam sëriñ mbakke mi nga xam ne moo jiite wàllu organisation moom itam mi ni nii teew euh, njabootu Madiaye Fall Amine nag moom jumaa ji miin nañ leen liñ ci waxoon mën naa ne waxoon nañ ko ci koor gi ñëpp déggoon nañ ko euh, ngir fàttaliwaat sunu laxasaay ci li jëm ci liggéey bi nga xam ne mooy liggéey bi mag ñi yoroon rek muy suñu waajur yi mu jëm ci jumaa ji ak barab yi ginnaaw bi jiitalee Cheikh Modou Mountakha tam ñoo ngi siyaare Serigne Malick Diop xalifa Serigne Omar Diop ak mboolem njabootu Serigne Omar am mbégte lool nag e, ci teewaay bii ñu fas yéene nag e, nañ defoon ci koor ga rek lañ defaat e, teewal fi jëwriñi Serigne Modou Abdoulaye Diop mi nga xam ne mooy jëwriñu kër gi moo nu yebal ñu ànd ak Serigne Mame Cheikh Diop mi ak soxna Bousso Diop mi nga xam ne Bousso Mandiaye nga xam mooy jëwriñu liggéey bi tey jii. njabootu Mandiaye Fall Amine gépp euh, tànn ko jiital ko jox ko muy doon jëwriñ ji nga xam ne mooy jiite soxna yi ci liggéey bi nga xam ne moo jëm ci jumaa ji mook soxna Coono Diop euh, soxna Asi Diop tam doon coordinateur général bi ànd ko soxna Xadi Baraan ak soxna Yaasa yi euh, sëñ Alaaji Ibrahima Diop mii nag moom Baye Amdi Diop moom tam moom lañ jël liggéey bi teg ko ci loxoom ngir mu di ko mu jiite ko fii ci Touba di ko soññee di ko dajale bu noppee lépp mu àndaat ak njaboot gi ñëw jébbale ko fii ci jumaa ji laxasaay googu nag sëñ Abdou Lahad moom lañ feddali si waat tey jii euh, taxawaat ci wàccaay wi jëm ci màggal gi euh, ñu woote waat ci dajalewaat ko moom lañ doon jébbalewaat ni tey jii kon nag laxasaay googu moom ñoo ngi sàkku daal ngeen dolli cee ñaan euh, suñu borom gën koo dëgëral ba la ci mag ñi yéene woon ñu ñoo ñu eggale ko fi ñu ko yéenee waaw loolu daal lañ ci doon ubbi xam dañuy jox kàddu gi rek soxna buso moom mi nga xam ne mooy jëwriñu soxna yi waaw bàyyiwuñu kenn nag bu ko defee moom mu rek e, jottali ay kàddu yoo xam ne fas na koo yéene ànd ak soxna yi ak mboolem njaboot gi ak mboolem rek koo xam ne rek bëgg naa liggéeyal seexul xadim ci liggéey bi nga xam ne moom la daayira bi yoral jumaa ji kon bisimilah soxna Bousso. li rabbil alamina sant yàlla bu baax julli ci rasulullah di sant sëriñ Tuuba ah lii moom sant nañ bu daal ci liggéey bi sëñ Tuuba bi di waa kër Maam Ndiaye Fall mi sëñ Asan ànd ko ñun jiital mi ah ma fas yéene ko am yéene ànd kook soxna yi ak waa Xadimatul Xidma di topp ci ginnaaw sëñ Assane ak ñim àndal ñëpp ba lu yëngu ci jumaa ji fas nañ ci ne ànd ak yéen ngi sant bu wér nag fi la moom day xawal yi sant nañ daal sëñ Assane. rahmatullaahi taala barakaatu ñu jaar waa daara ahlu xidma bépp xam si ne ñu ngi ci jumaa ji di ko teg ci loxo sëñ Abdou Lahad Bousso xam mooy jërum liggéey bi fii ñun maa wax ci kàddu waa coordinateur waa Kër Madiaye ci liggéey bi nga xam ne si ne ñu ngi koy liggéey te jàpp ne dañ ci xaw a yéex comme ni ci def nii nga xam ne ya dañ ci yéex a bokk daal ci ci ci wàllum coordonné ndax njaboot gi nekk nañ ñoo xam si ne ñoom pëste ci jumaa ji ñu ko bëgg lañ ndax nit dina mu wooyo fu di mu woo naa ma ndax liggéey bi kañ la ak fañ la ma xam ne kon mbooloo mi ñu bëgg liggéey bi ñu sopp lañ waaye xam naa daa jotutoon waaye nag suñ borom ko dogal na ne jot na ta léegi ñëpp ñu ngi jublu nañ ci man te li ma ci gën a soññ mooy ku ci jumaa ji wala ku ma ci wax ñu ne loolu am di jóob la ñun a ah, loolu de kon kooku moom mooy borom jumaa ji man daal soññ nañ ma ci baax baax man nag maa ngi talal loxo ñi nga xam ne si ne mooy ñëpp a kam ma jaafaale képp koo xam ne si ab jullit nga te liggéey Serigne Touba bi la maa ngi la ciy talal loxo maam daal suñu xol sedd na ci bu baax a baax a baax ñu daal xam naa dañoo faral di mën di wax ci yow daal maa ngi talal ñëpp loxo ci liggéey bi di xamal ne asan daal moom ñu ngi lay déglu daal loolu wax loolu incha allah. wa rahmatullahi ñuy seetaan yëpp te di leen siyaara di leen balu di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Mountakha di ñaan sunu borom mu yàggal ko fi te wéral ko di leen nuyu tamit ci turu Serigne Afia so imam mi nga xam ne mooy njiitul daayira Muxaddamatul Xidma ñu teew fi teewal ko fi man ak Serigne Fallou Mbacke mi nga xam ne mooy jiite commission organisation ak membre yi fi nekk yëpp li membre commission culturelle ak euh, membre commission communication euh, sëñ Assane ñu ngi lay nuyu di nuyu sëñ Baye El Hadj Ibrahima waaye di nuyu tamit soxna Bousso Ma Ndiaye Falamine euh, di leen nuyu bu baax a baax di nuyu sëñ maam Cheikh Diop di di leen yóbbante it ci sëñ Modou Habib Diop ak sëñ Modou Ablaye ak mboolem njaboot gi yëpp ñu leen ci ci ñoom nuyoo soxna ñu ngi lay yóbbante ci euh, sëñ sa sa sa kilifa ga sëñ ma Njaay euh, woo na ma sax barki dem rek euh, si fàllu jotaay bi dafa bokk ci jotaay yi nga xam ne ñu nit dañ danañ ko xaw a yéem ndax si jëmmi suñu asan nii rek li muy li muy représenté ci daayira Muxaddamatul Xidma mel na ne représenté na njabootu sëñ ma Njaay Faal gépp ci taxawaayam ci diaspora bi ak ci biir Sénégal ak fépp suñu xoolee tamit seen njabootug Seex Omar Diop tamit nga xam ne ñi ngi fépp tamit te te te te kenn mu leen taqale ak ñoom fu nekk ay jëwriñ tamit ak ci soññeeb si ñaasan mii dañu doon ñoo xam ne eh, dañuy dañuy taxaw ci liggéey bu baax a baax moo xam Europe moo xam Argentine moo xam Brésil moo xam Amérique ak fu nekk loolu kon. jàpp naa ne day doon ñaan gu nangu koo xam ne ci waajur yi la bàyyi ko li ci gën a am solo tamit maa ngi koy wax léegi sëñ alaaji mi ma ne ko sa waajur euh, xam naa ne waajur yi danañu bég ci lii suñ nekk fañ nekk ñu xam ne ñu ngi ñu ngi yëngu njaboot gaa ngi yëngu ci luy doxal jumaa ji danañ am mbégte moo xam ne loolu mën naa sabab gudd fan ci njaboot gi ñu fi bàyyi loolu lépp ay tawfeex la kon loolu rek ay seere yu firnde la léegi nag bu ñëwee ci jëmm liggéey bi nag mooy moom njariñ la mu am ci ku koy jëf xam li ma wax nii lépp da ngeen koy def mu doon loo xam ne dafa mel ne eh, Sëñ Tuubaa moo moo moo mate woon maam yi bàyyi ñu defaatee ci seen xarit ngeen jàppale lii lii dafa war a dafa a sax loolu kon laneen la loo xam ne da ngeen ci am beneen tiyaab beneen bi nag muy jëmm sëñ bi nga xam ne moom moo moom liggéey bi kenn ku nekk am na fu mu lay xéewale waaye ñi nga xam ne Sëñ Tuubaa xéewale na leen ñu koy liggéeyal ci barabam bii ñooñu moom gisuma ku leen ëpp tawfeex waaw bi ñuy def conférence su Muxaddamatul rek maa ngi koy wax membre yi nekk ci daayira Muxaddamatul Xidma ah ku leen ci yàlla tawfeexe leen ñuy dund ci bee bi manaa ci jaw ji di fi teew di nekk ak sëñ bi eh, di di di di di def luy niru seetal barab bi. ak a sàmm warma ji loolu moom Sëñ Tuubaa ci taw feexale nit waaye kenn mënut a takk li ci li ci aju ci tiyaaba loolu nag luñ luñ fi luñ fi luñ ci barab bi ak luñ mu bëri bëri man man ak ñi may laaj loolu wax dañuy jàpp ne bët bi sax dafa war a gën a bees ci ñun ci teew la sëñ bi ci warma ji ñu ko war a jox ak ci ci bàyyi gi xel noonu tamit la ciy participer mel muy ñi nga xam ne ñooy participer ci luy doxal liggéey bi ndax jamono jii. amut lenn lu gën a mën a doxal ab liggéey lu dul jumtuwaay bi bi nga xam ne boo ko amee man nga cee wut lépp te loolu mooy xaalis kon nag bu fekkee ne am na ay membre yoo xam ne gis nañ ne ñu ngi ci bitti ak ñu ngi ci biir dëkk bi di indi luy doxal liggéey bi loolu dafay mel ne euh, dañuy dàkk waaye dàkk gu jam la kon yàlla ñu yàlla defal tawféex te defal ñu saadatu daara yi ñu ngi ci am mbégte daal ci turu daayira bi yëpp ci turu Sëriñ Afia Bousso euh, tey ñu ni ñu ko waxee tamit di ñaan suñu borom tawfeexal ñëpp comme ni mu ubbee seen gis-gis ci mboolem ku mbokk ci njaboot gi nga ñëw tàbbi ci liggéey bi ndax liggéey bu am solo soxna bu it ñu ngi lay ñu ngi lay yóbbante nuyoo ci soxna ciw Thiuna ak mboolem soxna yi euh, di leen sant di leen gërëm di ñaan suñu borom mu barkeel njaboot gi te defal wërsëg bu yaatu woo xam ne danañ ci mën a liggéeyal sëriñ bi. kon ñu ngi tënk kàddu yi foofu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. صباح في إخدام خير الورى بدا وفي كل شهر زيد ربحي وفي صفر